sant leen sargal Facebook live bi di mayee xaalis am na ñoo xamante ne ci Facebook lañ nekk di ma laaj numéro tailleur bi ñaw lii no du jupago korok top korok top <laughs> waaw kay euh, robe la quoi ñu kub ko ci kaw yow jëlal ko ko mi ngi nii robe la robe la mi ngi nii mais dañ def taille jupe def euh, jalgati yi fi xewoon ci kaw quoi ma dox ci veux que je marche <coughs> C'est bon ou pas Encore. Il s'appelle euh, Badara, le tailleur. Il s'appelle Badara. ay <laughs> ci jël leen Badara fi mu ne nii li ma jaaxal mooy Badara yal na la yàlla fa cat moo xew ci tailleur yi nangu na kiliyaanu tailleur yi ci réew mi yépp nag Badara amal xel li ngay ñaw neex na rafet na yomb na am nga GP buy dem fu ne nga ne yow doo ci yem ah Badara mais ci te prends pour qui alors maa ngi ñëw ci yow ay ca jël leen numéro Badara tailleur bu ay bi ci réew mi lu mu la ñëwal nga foog ni prêt la ba pare day coupe rek sànni fonkul garniture ndax wóolu loxoom kookooy Badara ay ca 77 mooy numéro Badara jël leen numéro bi denc ko pour en cas ngeen bind ci tailleur poté ay ca non tailleur bu ay 77 mooy numéro Badara am 329 94 99 77 329 94 99 mooy Badara euh, léegi nag Badara da ngeen koy woo. ba pare bu leen ko jox modèle bàyyi leen ko mu ñawal leen li ne ci boppam xale bi moo am talan li muy dégager ci ciseau bi <laughs> attanu ko waaye bu ngeen paree ci tailleur bi ak euh, bu sa prestige da ngeen di wax ci sama rajeunir lan la yéen sénégalais yi bëgg lu baax daw leen ngeen woote palais di bio waa Chine lay dañ indiwaat beneen produit bu bees tàq boo xam ne ay xob la danga koy baxal def ko sa ndox mu jël graisse gi nga am yépp wàcc ko ci sa forme bi waaw kay feuille chirurgie la tudd feuille chirurgie dem leen ngeen woote Chine lay di dañ am beneen produit bu bees boo xam ne loo am ci graisse sa yaram da koy indi ba fii mu ba ko fa feuille chirurgie ba pare macha allah dem leen ngeen seeti waa Chine lay di ci quinze cinq 75 524 45 cinq je pense que noonu la quinze ku bëgg am taille rajeuni taille Dubaï. dama gëj a takk geen yàgg na dama fuy léegi <laughs> waa numéro Caayin Lady je pense que c'est 75 cinq 45 cinq ngeen def bel belli <laughs> di nuyu nag sama benn yaay depuis France euh, Ndeye Fatou Kamel euh, tey la anniversaire am taalibe seex bu mag boobu nga xam ne maam Abdou képp nga ko mën a wax mu daanu euh, joyeux anniversaire maman plein de succès beaucoup de bonheur loo dund doyul dundal ba doyal Ndeye Fatou Diop Kamel dundal ba doyal di nuyu c'est qui Mao am jéeri yaayu Njéemé Mbay ak euh, Ismaïla ak Daouda euh, depuis Paris depuis Paris euh, sa anniversaire la wala lan ah waaw mi ngi nii Khady Seck joyeux anniversaire yaayu Jéeri yaayu Khady Seck Jéeri yaayu Njémé Mbay ak Ismaïla euh, ak Daouda depuis Paris loo dundu doyul xadisek euh, dundal wéral xappil di nuyu beneen sœur à Binta Mbaw la ñu koy wax Mbaw ngaa la uudee euh, sama xarit boobu nga xam ne amul façon reewul bewul fi ko jëkkëram teg la toog yaa xale yee toogandoo waaye jug nañ bala ba tey nga toog <laughs> waaye nag nee naa la ween dafa important da nga ko nàmp ci sama yaay jëkkumba caam caam Babel Demba caam borom ne ni waas yi nga xam ne lu waay rendi yaay borom ay ca kon Binta Mbow maa ngi lay nuyu euh, yaayu daaleeg Pape mbay aussi di nuyu Meta Balde depuis Sato yi euh, doomu ndeyu Jiba Kani Awo Balde Issa ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Joni waa euh, moom yi raay yéen a moom loolu nuyu naa leen fon naa leen démb gisee ñu ngi lay fóon yow yi tamit borom son bu neex bi ma madame Diallo maa ngi koy nuyu di ko fóon depuis aéroport jas am ak sama yaay mère Thialal euh, depuis sama immeuble Dieng Sala Waynde loo dund doyul bëgg nga ma baax nga euh, dundal wéral ay ca ñu daal di dem euh, ci Facebook live bi wat cheveux naturel ak ay loxo 15000 15000 Amina yàgg naa la suivre mais aw awma chance ci yi ngay maye ok ngoone may naa la benn cheveux naturel boo xamante ne boo ñëwee fii nañ la woo passe ma la bala ñu la koy jox frise ku tudd kat yi dina la ko jox cosaan. Grand Dakar ay ca ngoone ñu ngi capturer léegi sa euh, profil euh, katee ngay dee di la xaar ay ca mi ngi noonu ñu demaat keneen kii mi ngi tudd euh, Pape Ousmane Mbaye may nañ la 15000 francs ci Facebook live bi di nga jot message trans transfert d'argent bi am kii mi ngi tudd Gora Sidibé may nañ la 15000 francs ci Facebook live bi di nga jut jot benn mes am am na benn weñ buy dugg sama gémmiñ di génn di fecc di def lu ko neex du ngeen ci wax ah gisoo ko zoom ko di ko gis wëñ bi gis nga gis nga day ñëw dugg bu doon ci tuñu la yem sax ça va day dugg génn fecc génnaat <laughs> wëñ bi mbaa dañ ko yónni wala société bu bees bee ko na tiital <laughs> ubbi leen seen xel yi Sénégal nag ñu waxtaan dëgg ah? nañ nañ muus tuuti franchement nañ bàyyi faralante yi ak ñun sénégalais yi ñun ñëpp benn bopp lañ kenn mënu fi jaxase kenn ak kenn Youssou Ndour réew mi daf ko bokk ak ay sëram ak ay frère kenn mënul ànd ak Youssou Ndour à 200 pour cent kenn mënu fi ànd ak keneen à 200 pour cent ku ci nekk lii sa intérêt ngay xool mais seen intérêt mooy ngeen xool kii liggéey réew mi te ngeen bàyyi di xool ku yàq réew mi ah xam nga société boo xam ne dina jël lu ëpp junni employé te avant boobu am nga plus de 1000 employés <laughs> bu leen di tëkkalee booy tëkkale ñaara tax nu ko géwél bi waxee am ngeen chance ba nekkuma géwél ubbi leen seen xel ah. ñu am yar am buñ paree ñu am sutura am après ñu tàmm di wax dëgg buñ yeewu gis nga àddina boo tàmmee di fen mbaa nga tàmm di sos gis nga fen ak sos yoru réew ak ku mënti doon ci àddina mënoo gérer réew <coughs> te dëgguwoo mënoo jiite dara ci ay fen parce que mën nga fen benn yoon ñu baal la nga fenaat ñu ne ax ah, garaawul xëy na dafa comprendre mais bu continuer dañuy dem ba dañ lay comprendre ña la joxoon bopp ñëpp dañuy retiré wu xam ne yow sa àddina ci lii nga ko bëgg a lal hmm? ngeen bàyyi nit ñu baax ñi ngeen bëgg yàq te kenn dootul wax nit ñi li xew ci àddina yéen ñëpp xam ngeen ko il faut que ngeen ñeme wéet il faut que ngeen ñeme wéet ku ci ñemewul wéet jamono jii ànd dafa metti tôt ou tard nga jotee ki nga àndal te bu la xamalee loo xam ne danga ko doon nëbb jàppal ni dana génn parce que léegi nit ñi xeexatuñ ci néegi xeexatuñ ci ëtt yi mais ci ci internet la ñuy xeexee yàlla nañ ci yàlla musal man damay liggéey ci média mais Cheikhul xadim xam ne ne télévision rek laa ragal nii mu lay génnee nga rafet bés dana ñëw mu gi def la loo xam ni danga naan lii ma doon teral waaye moo ma toroxal tey yàlla nañ ci yàlla musal jigéen ñi am doom teg leen seen doom yi ci seen wet ngeen yar seen doom am seen jotu doom ndax papa léegi papa yu ci baree bari seen bopp lañ tal mais jigéen ñi nañ takk seen ndigg am na papa yu am jom nag am na papa yu bëgg njaboot am na papa yu mën a sonn ci njaboot dëgg la yii mbay sang sayer kooku papaam garmi la dafa baax kooku fi mu bokk moo baax petit kooku papaam garmi la mbay sang sayer marem daaru kooku maamam lan woon àjjana fii ci kaw suuf ba pare mu soo a faatu fa yàllaaw te sëñ bàmbaa seexal maamam déedéet duma xam dof ñaar yée ngi ci man duma lekk waccaat xaw ma nu joxe duma waccu lekkaat waaye du ma xam dof noo du sa robb la dafa bandiwe rek ba pare ma gën ko dëngal gayen xamoon na ma dëng gayen mu ngi noonu dañuy demaat euh, Mawa Cissé nee na ñu delluwaat ci Facebook bi may waat xaalis euh, kii mi ngi tudd encore Badara Diop euh, bu Aminata Badara Aminata Diop may nañ la mille francs kii mi ngi tudd laa seen may nañ la cheveux naturel mën nga ñëw léegi cosaan ñu jox la ko ay ca kii nee tey la anniversaire am Euh, Oumou Diallo Oumou Diallo joyeux anniversaire dundal wéral xappil amal fulaay dund sa octobre bi mu naax ba déwén ay ñu yaa di demaat euh, ci beneen vidéo bu nax Sunday. arrivé yéenay soppi soppee. mani entreprise yi yaatu na confiance bi rëy na ba nga dem des yaatu na. dama ni pare naa nit sax defe naa xalaat bi jaadu naa. bi tamit na de maaw yow woon dem màkka kese man dama foogoon ci ay màkka rek la yem <laughs> merci beaucoup yaa ma gën a pop di nag uh, sama benn yaay boo xam ne mi ngi ñuy bëggee uh, kani gay papa xaar kooku nag mooy gay fara Kiné Diouf mu coon sekk mii la bokkal maam moom yaay la ci kin maam la ci Waali ba nag di yaayu Uba Ngom ak bébé Ngom ak bébé Faa waaye yaayu Poté <laughs> sama yaay ji maa ngi lay nuyu bàjjenu dabaak aas géy farama ca ndeer naataango mi ci mbaylaan dimi noon ko soxna Njaay papa gay xaar la woon ak soxna may mu baax mi cum fara jaara gay fara rama mbay fara amina poté chéri petit papa madame ñang maa ngi lay nuyu di nuyu nag sama xarit ba ca EGBS ñu koy wax euh, madame Diaby euh, doomu ndeyu Binta Binta Fall ah Binta madame Fall Binta Fall. acca maa ngi leen di nuyu bu baax madame Diaby maa ngi lay nuyu di la fóon di nuyu waa EGBS euh, ville Pompidou yëpp am ki mi ngi tudd Ndey Astu Mbay may nañ la encore cheveux naturel na la ñuy jàngee waxee cheveux ci tubaab xaadim wax ma ko nànk non cheveux chinois la tubaab am na nu muy waxee cheveux hair anglais la hair my hair I'm doing my hair <laughs> baal ma ak bilaay naa liggéey normal léegi baal leen ma non ñun léegi suñoo nekk na si patron bi dafa ubbi beneen société bu bees <laughs> ñi la la patron bi société baa ngi barki rasulilaay un ndour comme sa ki ubbi société bi njaga ndur mu baax mu bari jom moom mi nga xamante ne bukki yi jéem nañ koo galgal gauche ak droite muy rëcc rek nee naa seen waa kër nan suur njaga njaga nan ko suur cuuraayu seytaane ndax mu mucc <laughs> sama patron boobu njaga nduur nduura waali mbergaan noonu la suur mbay ndax nga mucc Bouba nduur mii nga xamante ne artistes yi ku nekk dara moo la produire moom nga bokkal ndey ak baay <laughs> Ibrahima Ndour xale bi nga xamante ne bu tegee loxo ci clavier bi lu yuusul ma ne son bu neex bu ngeen dégg ci réew mi rek Ibrahima ko rythme ñoom ñoo ubbi lii c'est des Ndour ñoom ñoo ubbi lii <laughs> ay waay tey nag laay soog a xam ne sénégalais yi ndeke da nga naan ko asamaan saa ngi mu ne lii du asamaan suuf la sëgg di ko wër. c'est des nduuraa bàyyi biraan nduur mu yaru mi nga xamante ne macha allah gàcce ngaalaama sonalul benn employé yuusu nduur bewoo reewoo waaye olof nee na taaw njëkk a juddu njëkk a baax ñun du ñu géwél ay tubaab lan waaye ku fekkee dëgg wax ko dara nekku ci <laughs> jàmm ji ngeen ñu maye tax suñ métier mi mokk ci suñuy bopp xam nga ay leçon moom buñ na ci diggee door dootoo ko dootoo ko réciter ok ajjuma incha allahu rabbi le 28 octobre <laughs> su soobee yàlla ci lañuy ñuy ànd ak président dëkk bi ki yàlla dogal mu toog ci pale bi chéri Marème Faye Sall moom mooy ànd ak ay ñoom maître Dior Diagne ay ñoom xam naa délégation ñoom Tamaro Seydi mais xam nga ma la laa bëgg a fekkee xale yi indi seen ay CV bëgg ci saa si ñu jël leen ñooñu laa bëgg a gis ay lay neex na ba nuppi ay ca kii mi ngi tudd euh, Ndey Kumba euh, Sall Ndey Kumba Sall may nañ la cheveux naturel ay Amina Poté li nga sol laa bëgg mais Ndey Kumba noo toll mais ñëwal amul problème indi naa beneen yére mi ngi sama oto bu fekkee sori woo cosaan Ndey Kumba ñëwal léegi ah, ma summi yére bi léegi léegi jox la ko mais j'espère que da nga koy sol nag mu ne moom la bëgg waa lan moo tax taxul teelul wax ba ma mayee ko ah nabu na bàyyi ma may ko tissu kon bu mel ni nabu ice nabu glace waaw waaw Youssou ubbi na société waaye Aby ubbi na restaurant bu toj fa la ñëpp di añee ak di fa reeree bari corniche bii non ay client Aby Ndour amatul ay pourboire junni la ñuy bàyyi ci table yi boobu glace glace gi turu glace gi comme saaga nday son <laughs> ci abinduur rek nga ko mën a lekkee eh glace gi abinduur di jaay ci corniche bi sa ndey la tudd sa ndey dangay ñëw ni ko salaamaaleykum abi boo yéexee nag da naan la ay jeex na ay désolé ngay dégg ak jaay ma sa ndey <laughs> glace la tappaleen ko internet glace gi mi ngi tudd ay sanday boo mayul clip bilaay boo mayul clip dinaa wax leneen may ma clip ba suudul yéen tàccu leen seen bopp tàccaat leen seen waa kër maa leen war a tàccoo ak yéen ma war a tàccoo ami sama jeeg oli boobo ami sama jeeg oli boobo papiira an ki jambolo ca naw naa seen taxawaay boo tax ñu dem salgal leen wuyoo jóg Santander Fatima am ci jamono xam naa seen taxawaay moo tax doo jóg Santander xaramante te am leen xalama nañ leen tatagal nañ leen waaya nañ leen sagal nañ leen xalama nañ leen tatagal nañ leen of me. say sama maam xam nga ni Ndakaaru deex Peru dem nañ fa keroog jëndi sa ndey cëpp <laughs> glace sa ndey lay jaay ay glace su Abi Ndour amul ci àddina ah xanaa buñ ma porté plainte dañu